البشر هذا وقصدي خلمة تقر عين النبي بها كما تبر nawaytu min dal aamiqin mbokki téléspectateur Thiès TV niñ koy defee rek saa su ne euh, su màggalu Touba teroo seen télé bii di Thiès TV di ànd ak yéen déplacé wu ñëw ci zone yi nga xamante ni taalibe Serigne Touba ak jullitu yàlla yi fi ñuy jaar pour dem loolu moo tax dañ koy defee sa at bu ne rek màggal Touba lépp loo xam ne doon na information seen télé xam naa rek bu ko defee ñu gis fii tamit ay soxna yoo xam ne ñu ngi waaj soxna si maa ngi maa ngi ziar. man yaa ngi waaj dem Touba. waaw kay ci rek ak màggal rek. ñu bëggoon a xam jamono ji màggal gi waaj nañ jee fii aussi ci espace bi tey ban message ngay wax taalibe yi. taalibe yi xanaa rek na woon fa woon rek ñun taalibe moom macha allah moom naa ca kaw ca kanam rek. ci ndigal rek na ñuy woy jàmm salaam. mi ngi noonu tamit ma tamit fi waa ji Pape xam naa ni oto baa ngi xaar tey ñoo gis la tamit nga ànd oto ak sa waa ak sa famille di waajal màggal. jërëjëf Pape maa ngi lay ziar bu baax a baax gis nga ñu ngi fii ci course bi di xaar euh, oto comme ni koy defee chaque année. mais comme euh, fii euh, souvent oto yi dinañ fi bëri mais njëg yi mooy xaw a wuute ndax euh, mboole mi nga xam ne ñoo fi daje kenn ku nekk li ngay yor dadul méngoog ñaare ak oto bi ngay bëgg waaye nag jar na gars yi dafi toog ba gee fekk leen fi sax lépp rek ngir bëgg am oto bu tolloog seen poos ayca mi ngi noonu nekk waa ji Pape li ci askan bi xam naa rek ba dañuy continuer ñi ngi gis tamit ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci wàccaay jëm Touba fi mu toll nii nag jëm Touba xam naa rek maa ngi gis beneen góor yàlla suñu maa ngi lay nuyu. Ah oui ça va bien. waaw mel nga jëm. oui oui je pars à waaw maa ngi xaar oto waaw effectivement oh, bon c'est juste beaucoup de prudence et aussi respecter les sécurités qui sont mises par rapport aux routes vis-à-vis de nos frères soit policiers ou gendarmes c'est ce que j'ai vu. ok merci beaucoup ba tey rek ñu continuer lañ naan nag màggale Touba ñëpp ñu ngi dem Adja ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay. waaw Touba lañ jëm moom fas yéene rek dem màggal Serigne Touba gi waaw màggal. dañuy perturbé Adja am. Ah. waaw fas yéene dem ci màggal Serigne Touba moo woote. mbiru Serigne Touba moom amul tànki ginnaaw tànki kanam dong la am ñu ngi ñaan nag dem ci jàmm dellu si waat ci jàmm ci daraja Seydina Mouhamed. ay ayca ba tey rek ñu woyal tamit ñu ngi seenaat fii suñu beneen jigéen a ñu ngi lay nuyu. waa Pape maa ngi leen di fay. waa ñoo ngi waajal màggal gi. ñu waajal màggal gi ñaan yàlla dem ak jàmm ñëw ak jàmm lépp aajo bu fa waay yóbbu. na ko yàlla faj barke Seydina Mohamed. la lépp lu ñu ragal yàlla nañ ko fa yàlla dàkkar dana jël Seydina Mohamed jàngoro ji yàlla na ko fi yàlla jëlee. dem ak jàmm ñëw ak jàmm jërëjëf yéen waa Thiès TV. مسلما bu ko defee rek dafa waaw ah? waa di kontaan rek di kontaan vraiment di dee comme niñ koy defee at mu jot di dem Touba màggali vraiment di ñaan euh, yàlla yóbbu si jàmm ñu dellu si jàmm Touba moom mënuñu mënul mënul woon ñàkk bañ a am parce que dañ cee gis suñu bopp ak mu nekk bu ñu demee rek bu ñu ñëwee yokku rek waaw moo tax daal vraiment di ñaan yàlla ñi ngi dem ak jàmm di ñaan yàlla dellu si te ñaan ñañ fay ñaan yëpp yàlla defal ñu ko defal ko réew mi waaw yàlla ñu ko yàlla defal salaamaaleykum sëñ bi ziar nañ leen ah màggal gi moom fi mu toll nii taalibe yëpp a taxaw pour fas yéene dem xanaa ñuy ñaan chauffeur si rek ñu def xéewal ci paas yi ndax ñëpp a bëgg a dem daal ak euh, corona bii ñu jógee yooyu ñëpp am yéene daal ñu leen di ñaanal tamit seen liggéey yàlla barkeel ko ngeen yokk ba kaw a kaw ñu fekkee ay màggal yu baree bari yàlla may ñu ñu dem si jàmm ñibbi si si jàmm aywa jërëjëf ca kaw ca kanam. pare nañ noppi moom ne ci waajtaay gi rek waaw di ñaan yàlla teg ñu si yoon jàmm dem ak jàmm xam nga jàmm dañu ñaan yàlla nangu ko waaw yàlla may ñëpp tawféex ba ku si nekk dem ak jàmm ñëw jàmm daal incha allah loolu daal la ñuy ñaan si kattan ndax li fi jaar kon su ne bu suñu defar jamono ba mel nii dañuy sant yàlla rek tey kontaan te am mbégte ñu dem den den dem te waaw jërëjëf daal lañu war def ci xéewal waaw ndax sëñ bee woote waaw ay taalibe Serigne Touba moom boo leen yóbbu dañ koy war a def xéewal waaw nañu wàññi paas daal daal lañ gis moom suñu gis te la jërëjëf jërëjëf waaw xam nga rek di waaj màggal Serigne Touba gi waaw di a nekk si ginnaaw yéen yéen yéen waa Thiès TV rek di leen ñaanal jàmm ak salaam waaw xamu ñun moom dañu amul leen leen lu leen lu Serigne bi daal waaw ñun ñoo ngi bàyyi lépp wala ci loxoy Serigne Touba rek yaa jëf daal xam nga a baax grand frère jaajëf Sila jaajëf jaajëf waaw waaw waaw sant Serigne Touba wér a wér màggal bi wér na kenn du Serigne Touba sant Serigne Touba wér dem ak jàmm dikk ak jàmm akasa ja gis nga fi eh, ci diwaan au centre de Koulsou xam ne ñu ngi ci yoonu Touba ak kàddu yu yëkkati xam naa incha allah dañuy avancer ak bu ñu yeggee ba gën a yaatal dégg ngeen jëf. وسأله عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه